عند السماوات هو قلب billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim fas yéene ñëw ci sunu juróom-ñetteelu waxtaan ci téereb sëriñ alxaaji mbàkke bi mu xam ne mooy xaaj bu njëkk bi ci tombu téeméer waxi sëriñ bi ci jaay ak jënd ak asaka wa ahalallahu albayha wa harama riba wa am na ku ñuy wax alsandiir ku bare woon alal la mas naa ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadalofo maxtaaralofo bàyyeekoo Dakar bi mu dikkee nag ne ko dama doon indi asaka kat ndax damaa dégg ñu ne ku ragal yàlla lañ koy jox sëriñ bi ne ko def nga lu baax de boo delloo ndakaaru nga seet juróom-ñeent ñooñu sunu boroom wax koo ca gis nga jox ko ko boo leen xamul nga seet ku leen xam mu xamal la ko ndax man damay génne asaka te kuy génne asaka kat du lekk asaka bi mu demee nag daal di def noonu ba noppi ñëwaat weneen yoon indi ñeent téeméer jox ko sëriñ bi ne ko def naa noonu nga wax waaye dama bëgg ñeent sëriñ bi ne ko bu ma ko xamee tamay lu yàlla daganal te sant ma ko day danaa ko def mu ne ko li may wax kay du lu xaram sëriñ bi ne ko waxal ma dégg mu ne ko dama bëgg doom ju góor tey jaay bëgg mu barkeel ak gudd fan lool su ma dee daal di tabbi àjjana sëriñ bi ne ko li nga bëgg day dara doonu ci lu yomb waaye danañ la teg ci yoon woo xam ne boo ko wàccul da nga am li nga bëgg ne ko doom jooju ngay wax nag da dem ba ci jigéen boo xam ne bëgg na la nga bëgg ko ay mbokkam mbëgg la nga def ca alal ju lew su ko defee boo ca amee doom sunu boroom dana ko sàmm ba mu def li nga bëgg mu ne ko mën naa ko sëriñ bi ne ko defal ndànk waxuma da nga eh, da nga ko ci am da nga ci am doom de dama ne bu ci yàlla dogalee doom dana la ko sàmmal ba mën laa wut boo dee jaay bëgg mu barkeel nag na ngay jaay lu mbindeef yi bëgg te yombal njëg yi ndax jafeelu njëkkat wala téyelu nit soxla ci sukuraat la lay xaar bu fekkee nag da bëgg a gudd fan na ngay moytoo fecc war ma ak dogug mbokk bu fekkee nag da bëgg boo faatoo daal di tàbbi àjjana na dangay seet li yàlla bëgg nga di ko def ba faatu limuy tere it nga di ko daw ba faatu boo leen xamul nga dem ci ku ko xam xamal la ko daal di koy bindal juróomi jiim ji ja ju ju ja ne ko jébbulu jàng julli joxe janatu mu ne <clears throat> mu ne ko xam nga ko sëriñ bi ne ko mu ne ko xam nga ko sëriñ bi ne ko boo dee jébbulu da ngay jébbulu ci ko mat ab sëriñ boo dee jàng na yàlla tax boo dee julli na yàlla tax boo dee joxe li ngay joxe lew boo ko bàyyiwul tàbbi àjjana daal di koy bindalaat juróomi jiim ja ja ji ju ja ne ko jaay jayu jeelu jooy jeex na ma mu ne ko xam nga ko sëriñ bi ne ko euh, booy jaay day am àq yoo ci war a génnee mel na àqi waajur ak asaka ak sarax boo ko génneewul nag mooy waral ak jayu te boo jayoo jeel te boo jeelee jooy daal di na ma siiw na tomb téeméer ak benn waxe sëriñ bi ci ku nara a taxe ak ku narta taxe li xayrin taxa bil muntaxa kullu si saxaa waa wa yanhu bihi nahwi zahidun wa ju tuxa tomb téeméer ak benn am na ku ñuy wax Moustapha Maroon bañ koy denc Serigne Touba xaadalahoo maxtaaralahoo ñëw na ba ca armeel ba ki nga xam ne moo ko doon gas pax ma ba mu gasee ba mu ci bëtu ko sëriñ bi wax ne baax na demal ca wet gi ci des mu dem ca wet googa di gas ba mu ci bëtu woomam mu ne ko baax na ba ñaari woom la bi nga xamee ne nag denc nañ ba noppi fekk na am na koo xam ne daa xàccoon ci sëriñ bi ba dellu fam dëkk te faatu woon nag njëkk Moustapha Mouroune moom sëriñ bi wax ne fan yële de amoon na ko faatu woon ñu ne ko ah kay sëriñ bi wax ne texe day daa mel ne day womat ka nar texe yóbbu ko fa ñuy texee texee di itam day jiital ka nar a texee di ba foofa wér na. tomb téeméer ak ñaar waxi sëriñ bi ci ku jënne sàdd ba mu faatu. sëriñ Tuubaa xada loxo maxtaara loxo mas nañ koo laaj ku jënne sa dëppam faatu ci luñ koy atte sëriñ bi wax na ca la xam ne ca la nekkoon laata jinne di ko sadd wér na tomb téeméer ak ñett waxi sëriñ bi ci seytaane wala tattabihu xutuwaatu seytaan am na ko ma sa wax sëriñ Tuubaa xaada loxo maxtaara loxo damay gàllankoor lu bari ma bëggoon nag ku ma ci dimbali ba lu ma bëggatee jëm ci lu baax man caa jëm sëriñ Tuubaa xaada loxo maxtaara loxo ne ko ngay fase doomam ji ngay denc mu ne doomam sëriñ bi ne ko waawaaw mu ko koy doomam sëriñ bi ne ko mooy àdduna koo bëgg a tàggooteel nit ku bëgg a tàggooteeg nit da ngay fase doomam yi ngay denc ci wér na tomb téeméer ak ñeent bataaxal kuñ ko jox ku wéyal la ca nekk yaa ko moom sëñ Tuubaa xaadaloo loxo mas naa am ku yeewi ci daara ji jox ko ab bataaxel ngir mu dem ci ay mbokkam ñu wutal ko soxna ba mu demee jox ko nijaayam mu bég ca lool daal koy jox ay yére mu sol woo seen soxnaam ne ko mu ànd ak diw doomam ju jigéen bi ñu agsee mu nuyoole leen ne ko kii moo doon nekkoon ca daara ja moom laa amoon lu ma la doon wax ci moom mu ne ko waaw mu ne ko loolu kon ak àggale ci des man ngaa dellu ca kër ga bañ toogee tuuti waaja ne ko ana bataaxel ba mu ne ko bi nga ma joxoon mu ne ko waaw mu ne ko bataaxel day ku def lañ la ca wax yaa moom mu ne ko man nag sama bataaxel ma ko jënde dara mu nar a wax mu ne ko ak lu mën a doon najaayam ne ko kon baax na waaye fii moom jeexal nga fi mu ne ko baax na bi mu wax ko sëriñ Tuubaa xaada loxo maxtaada loxo ak nam def bi mu ñëwee euh, ba sëriñ bi ne ko ba fi mu ne kon wéelu ko mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko yow kat yow rek la da nga xelluwul dara daa di woo keneen bind beneen bataaxel jox ko ko ne ko boo demee nga ne ko mu wiyal loola ndax la mu wax kat mooy dëgg bataaxel kuñ ko jox nga wiyal lañ ca wax yaa ko moom wér na waxe sëriñ Tuubaa ci ñàkk solo ak àddina ak dëdd ko tilkal daarul axirati naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna uluwwan fil ardi wala fasadan tombu téeméer ak juróom sëriñ Tuubaa xaada la fa maxtaara la fa nee na àdduna ñett rek ñoo ciy farata bi ci jiitu mooy jàmm te saa yu jàmm amee sa dana dem ci loo mos boo mosee dara nag sa xel dana nekk ci loo sol bu yooyu amee ba noppi nag ngeen di nekk nag ci loo xam ne ay caaxaan rek la waaye yooyu rek ñooy farata wér na tomb téeméer ak juróom benn sëriñ Tuubaa xaadalaxo maxtaaralaxo nee na yaari yëf lu doy fi moom waar la ku ciy génn di ko bëgg a tudd ak fu ñuy bay di ko bëgg a dëkke ndax ku ñuy wutal tur di ko bëgg a tudd du gis dund gi faatu gi lay gis ndax ku juddugul du faatu fu ñuy bay di ko bëgg a dëkke du gis dëkk gi gent gi lay lay daal di gis ngir xam ne fu ñu dëkkagul géntagul wér na tomb téeméer ak juróom-ñaar sëriñ Tuubaa xaatu loxo maxtaaru loxo nee na ñetti kullu yii ñoo mat a bari ree kullu nafsin saa'iqatul mawti kullu man alayha faanin kullu shay'in haadikun ilaa wajhihi ñetti kullu yii kenn waru koo gis ba noppi di tex texi wér na tomb téeméer ak juróom-ñett sëñ Tuubaa xaada la fa maxtaara la mas naa am bis tawar yi ak njàmbat yi bari lool ba mujj mu woote wax ne tawar yi day daa bari lool te wuute koy bëgg a seet na ngay def ak moom rek keneen ñëw wax leneen sunu borom nag jekki ba lekk mu yenkewal ma ci nu ma xamee ne tawet yi dañoo mënta saafaraw ndax dama wan ne àdduna mbaar la moo xam ne moo ko fi mbaar ba mu koy mbaar nag daa mel ne da ko fonk lool wutal ko jën yu baax wutal ko kenn yu baax xadd ko xadd bu baax ñuy dem ba mu yàgg nag mel ne sàqi mbaar mi gënal na ko nam ko woon moo xam ne sàqi mbaar mi nag dindi kenol moo ci gën a gaaw mu daal di dindi kenol yi teg fee ba ko defee nag mbooleem la wute woon kaw daal di wuti suuf ba mu wuti nag fekk ñëpp dawoon dawoon nañ wuti mbaar mi ngir nuru gum nuru woon lum fonk ña nekkoon ca roon nga nag ku ne dara dal na ko ñii ab bant dal na leen ñii ab gittax dal na leen wér na tomb téeméer ak juróom-ñeent waxi sëriñ bi ci tooñ asul mu sulumaatun yowmal xiyaama sëriñ Tuubaa xaada la woon waxtaan la xoon nee na tooñ ñett la tooñ sa borom tooñ sa morom tooñ sa bopp tooñ sa borom nag boo ko defee da lay delloo say jëf tooñ sa morom nag boo ko defee sunu borom day jël sa yiw jox ko jël ay ñaaw te fam jox la tooñ sa bopp nag mooy defal aw yiw koo xam ne yiwul wér na tomb téeméer ak fukk waxe sëriñ bi ci saaga waxulu li naa si xusnan sëriñ Tuubaa xaada loxo maxtaara loxo mas naa dégg ku saaga ci fere yi mu wax ne dama dégg lu mel ne wax ju safaanoo de te loolu de daa mel ne léeg-léeg ma di ko dégg ci fere yi ñu ne ko waawaaw mu ne leen da ngeen koo mënta bàyyi ñu ne ko am na ñu koy def de lool de mu ne leen li leen ko tax di def nag laa leen di wan iblis day koo xam ne man dong nga ko xitteel doxatul fenn jëmatul fenn man nag sama borom defal na ma ci biir euh, séng koo xam ne soo xam ne xamul ci man dara mënul ci man dara yéen ñii nga xam ne nag yéen a wéeru ci sing gi suñu ma defal yéen ma taxawut ay ndaw jox leen ay togaar ndaw yooyu yi di diir fi ngeen wéeru di fet su ko defee bu ñu sànnee kum ci dal rek ci yéen rek fawu nga wax loo xam ne du sa jublu mooy wax ju safaanoo jooju wér na tomb fukk téeméer ak fukk ak benn waxi sëriñ bi ci néewal ay wax wa isha xultum faxdilu mas naa am ku ñuy wax mas naa am koy wax ba tudd dameel sàmbalaw bi sëriñ Tuubaa xaadalafa maxtaraloo dégg ko woo ko ne ko ana lu tax nga tudd kooku mu ne ko xanaa kay nit day def buy waxtaan di wax ca lam xam rek waaye du leneen sëriñ bi ne ko tutu googu kat mën na indi ak yàq gu rëy dama lay wax làmmiñ ba ko yàlla di bind la taxoon la taxoon ñeent yëf la ñeent yëf rek la jàng alxuraan julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa bi wa salam digle lu baax tere lu bon loo ci def lu bokkul ak ñeent yooyu rek mi ngi mel ne nga dem ba ci junjung ne ko xam nga luy junj nga mu mooy li buur yi di tàggoo saa su bëggee tëgg sëriñ bi ne ko nga dem nag fekk mu teg ko fu mu fonk lool ci biir néegam nga fekk ko fa jël ko yóbbu ko ca penc ma di ko fa teg bu ko déggee ba xam ne ab juñingam la saa su la fa fekkee lam lay def du ci tàggu kenn wax yooyu ngeen di wax nag noonu la demee wér na tombu téeméer ak fukk ak ñaar waxi sëriñ bi ci mabat wala tatamannaw ma fadala laahu bihi baadakum ala bahdin sëriñ saa Diène mas naa wax sëriñ Touba xaadalaxu maxtaadalaxu ak aka neexoon ma moomoon suuf sépp muy wurus ak xaalis ba jox la ko sëriñ bi ne ko bu ma ko moomoon ba jox la ko day ndax da nga ma nangoo taxawal ci xal seen saa mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko te ngeen sant yàlla kon siiw na romb téeméer ak fukk ak ñett waxi sëriñ bi ci soxna Faati Isa Diop fa man suux si xaxanin naari wa di xelal jannata fa xat faasa soxna Faati isa mas naa wax sëriñ Tuubaa xaadalaxo maxtaaralaxo damaa ragal bàmmeel sëriñ bi ne ko bu ma la ci dugalalee sama bopp xanaa da ci ñeme mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko maa la ciy dugal noonu itam la ko defee ci ci yéen jolof tomb fukk ak téeméer ak fukk ak ñeent waxe sëriñ bi ci yemoo góor ak jigéen waxtu dal jàng wa zakkiriina allaha kasiran wa sëriñ Tuubaa xaada la xoo maxtaara la xoon mas naa laaj sëriñ Banji jigéen gum yoroon ne ko am na fa dooma mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko nu mu toll mu ne ko bu doon góor day mata dal jàng sëriñ bi ne ko ba muy jigéen nag mu ree na ko tuub naa ko sëriñ bi ne ko ñooyam wér na waxe sëriñ bi ci jaxasoo góor ak jigéen waxar na fi buyootikunna wala tabaraj na tabarujal jaxilayatel uula tomb téeméer ak fukk ak juróom sëriñ Tuubaa xaada loxo maxtaara loxo nee na góor xalundeef la wu yend jigéen di sayu mbopp iblis di seen ngelaw ku dajale góor ak jigéen fenn boo ne yàlla nga fa fenn nga siiw nga tomb téeméer ak fukk ak juróom benn bi ñu tabax ñu may njaareem jigéen ñi dañoo ñëw ci sëriñ Issa Diène ne ko dañoo bëggoon di barkeelu ci ci liggéey bi mu ne leen dama koy laaj sëriñ bi ba xam ba ko ko laajee mu ne ko saxaar gi saa su ñëwee di indi xeer yi lenn li na ko wàccee foofu ci wetu kër ma Masamba Diop góor ñi di yanoo foofa li ci des mu ñëw ba ci lungeen mu wàcc ko fa jigéen ñi di yanoo foofa di ko indi ba ci diggante daaray kamil ak kàdd gi góor ñi di ko fa jële di yóbbu ndaxam bëgguma ñu bokk yoon bëgguma ñu bokk fu ñuy fare bëgguma ñu bokk it fu ñuy piccee muy fu ñuy sottee subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon xaaj bu njëkk bi mi ngi noonu tolloo woon nag ak juróom-ñetti waxtaan waxtaan wu ci ne am fukki minute ak juróom kon ñu daal di sóobu rek ci waxtaanu ñaareel bi bisimilah.